leneen mbokk yi muy fii ak weer dinañu tàmbali nee ñu daal tabax musée islamique boobu ñu dippee Al Khadimi euh, loolu nag lañ ca bëgg rek mooy fexe ba liggéey ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba ñu gën koo fësal lañ ci def ci ay koppar toll ci fukki milliards ak ñaar ci noonee euh, dañuy teewlu Serigne Chérif euh, Fantama di Mbàkke moom nag moo jiite comité bi saytu lu jëm ci wàllum liggéey bi di fàttali ne liggéey bi nee ñu ci diiram ñetti at war naa noppi Cheikh Diop moom la dénkaay kàddoom liko sabab moy gëna woné wane sëñ Touba gëna woné am jàngalem rek ndax loolu ci lañ nekkoon naka jekk ñu gisit ne lii war naa mën a indi leneen lu yees yeneen doxin yeneen yeneen jéegu yu bees ci gën a xamle yoonu murit ak liggéeyu sëñ Touba ak ñu àndaloon. barab boo xam ne dañ koy tudde këru barkeel yi sëñ sëñ bi nag mi ngi ko tuddee almatxaful islami al alxadimi mooy musée islamique al alxadimi nga xam ne dañ fay denc ci barkeel yu jóge sëñ Touba waaye dañ fay nettaliwaat yoonu murit tam ci njëlbeen nga ba léegi fi yoonu jaar ak yi ci xew ak sëñ Touba ci boobu ak ñoom àndaloon ñëpp Euh, door na sax liggéey bi door na def nañ propose premier pré ci weer yi li jàll ba liggéey baa ngi dox kon li ci des rek mooy ñu wéyal ko te te ci woo ñëpp. xam naa ne ñi ngi xalaat ci fi ko teg nag mooy gëm sëñ Tuubaa doyloo ko waaye xam naa feeg ñaar ñetti at incha allah war naa mën a waaw ci xayma euh, ñu ngi ko àpp ci fukk ak ñeent ba fukk ak juróom ci ay milliards waaye nag jàpp nañ ne dana jàppandi ci ndimul sëñ Touba ndax yi fi jaar yëpp moo gënoon a rëy lii muy jumaay Touba muy Masalik muy université bi tey te daanaka léegi mu noppi.